عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ما وخي نكون نيا دافا بغا تار ريومي فك مان بوماي تار ريو دوما وخ فك ماغي وخ رك xamal ni dara xew waaw ndax dafa am koo xam ne ci moom laa ko donni dañuy Cheikh Tijaan yi ma waxoon ni fekk ñu ngi yor rajo di di di xuloo rek booba meraguñu nee na bu ñu meree ci allahuma lañ jëm mu ne allahuma ja kuy defaru ca ngay defaroo waaye kuy yàqu it ca ngay yàqu waaw waaw ma toog ak Ablaye Diop ministre mu ni ma sëriñ Moustapha booba maa ngi ci prison bi de mu ni ma li ma jaaxal mooy ku leen mës a opposé ba mu def leen naka sa dul noona mu jëm ñépp dañ ko mujj yërëm waaw ndax alu ko ma ne ko parce que tooñ baaxul yàlla nanguwul ko tooñ waaw te ñun duñu tooñ kenn tooñ duñu duñu tooñ kenn dama nekk ci prison bi régisseur ba ma yoroon ca waxtu boobu ñëw wuy si seet si ma ñu doon ko wax Chamsuddin mu ñëw fekk ma maa ngi yor sama kurus ci biir cellule bi mu ni ma ah sëriñ bi boo déggee ni mise à pied nañu ma rekk walla dañoo dagg sama salaire xamal yaa tax <laughs> mu ni ma ma ni ko lu tax mu ni ma dañoo toog ca ministère de l'intérieur rekk téléphoné ma jox ma ay instruction ni ma defal lii ak lii ci Moustapha ma ni ma bu leen yitteelee yéen ñëwal leen seen bopp ñoo waxal ko ko seen bopp mais du ngeen ma utiliser lu ngeen ñemewul yéen ba noppi ni mën naa ko def mukk mu ne ma nag loo dégg fan yi xamal ni loolu la mu ne ma nag mise à pied nañu ma dagg nañu sama salaire fekk yàlla dogal booba maa ngi yor franc bu doy ma ne ko ñaata ngay fayeeku salaire mu ne ma temps ma tripleel ko jël ko jox ko ndeysaan bët yi taa mu ne ma maa yay lànk <laughs> nit ku neexoon la waaye ku dëgër fit la te ñeme dëgg

te mu sonal chauffeur bi ni ko jox ma sa autorisation chauffeur bi ni ko boma ma laajee permis de conduire ma jox la ko boo assurance ma jox la ko boo carte grise ma jox la ko waaye convoi bii nag ak gyrophare-am ak sirène am ñaar fukki at ak nii ñu di leen fi romb ngeen di ñu escorté te masu leen ko laaj muy dëgër dëgër lu nag ni ko dinga ma jox sa autorisation xale bi it dem ci lim ko wax rek ba mu jaaxlee mu dem woyi chef bi chef bi ñëw moom itam wax la même chose di mu ne ko eh demal ci sëriñ Moustapha nga laaj ko mu ne ko eh bu ma jaxasee sëriñ Moustapha ah. et puis c'est tout mu mujj ne ko dem leen moo tax bi njaboot gi di ñëwaat ma gis ñëpp yaru ma ne ah waaw yooyu le problème ñoom dañu defee ni pour ñun ñu def cortège dañuy jéem a nuróo nuróolu ay ñoom Macky Sall man ma raw Macky Sall billaahi wal kitaab li may yittee la ñëwagul rekk moo tax ma bàyyi ñoom soxna mbooseek ñoom soxna sëriñ Babacar rek en attendant rek ñu nekk fa symbole waaw jeex na waaye lii ñëw a ngi ñëw waaw na ñëpp pare seen bopp rek bu municipal yi ñëwee def leen seen fayda bu législatif yi ñëwee def leen seen fayda li ci des nag xawma ma ndax dinañ yegg ci élection présidentielle beneen yàlla xam la ma waxoon Abdou Diouf mu defe ne ay kaf la man ko génn pale ba ba dem bàmmeel

come